Euh, je suis membre euh, de la coalition des acteurs de la musique depuis euh, depuis lors pour nous faire artistes reprendre activité donc tout d'abord nous tenir vraiment à remercier le ministre de l'intérieur remercier également le ministre de la culture bi nga

parce que euh, quand même depuis une dernière xaar nous avons échangé. échanger donc après nous, ils se sont retirés pour pour parler les ministres pour parler donc ils nous ont demandé que nous revenions à Tsuba pour euh, pour euh, à 19h même heure même même place B pour que nous menons conclure pour voir la décision qui a été prise pour que artistes yi faire activité. donc nous avons demandé déjà le point bi nous bi demandé, que demandé pour nous autoriser nous sitting nous def sitting autoriser pour nous def sitting bi c'était pas pas pour. Euh, def bras de fer C'était juste pour montrer que quand même depuis que le Sénégal est Sénégal mosuñu gis artistes yi taxandoo ensemble nekk ben bloc pour revendiquer ses droits wala pour wax pour ñaxtu ci li nga que ni moom la ñuy daj ci métier bi traversé. donc loolu benn point bu moo doon point bu njëkk bi deuxième point bi moom mooy que nous ñu dindi ñu demander leen à ce que ñu euh, ñu euh, euh, annuler arrêté bi nga xamné ne que ni mom mo génn ci week-end bi pour tere artistes yi ñu ñu performer ci ci de diffusion yi nga xam comme restaurant yi la comme hôtel yi ak comme bar yi donc déjà loolu et puis ñu profiter encore ci occasion bi demander leen à ce que ñu ñu jéem ñu xoolal naka la ñu mën a euh, dans un futur euh, prochain comment la ñu mën def pour ubbi salle yi nga xam ne ne que ne salle yu mag tout en tout en respectant les mesures barrières parce que ñëpp xam nañ ne ko aussi si salle yu mag yi boo xoolee sax moom moo gën a xaw pour mën gérer activité yu nga xam ne ne que ne artistes yi ñu koy mëne donc lors moom moo dégagé wu ci on est très euh, euh, sensible à à la à la maladie parce que wax nañ que ni bi euh, Covid bi dugg see Sénégal ba tey artistes yi ñoo nekkoon ñi nga xamné ni que ñom ñoo njëkk di liggéey ci sensibilisation bi ba nga xamné ni que Covid bi wàññeeku na donc aujourd'hui depuis mois de mars liggéeyuñu wax nañ leen que aussi njabot yi mi ngi tass que wax nañ leen que ne entreprise yi ñi ngi tëj que mëna tunu mën tunu donc je pense que ne ñoom dégg nañu aussi ministre bi wax na ne que carrément vraiment quand même dégainer na nos cri du cœur que nous may leen nous ak suba ñu comme ça une décision va être euh, donnée pour nous comme naka la colonie doxalee ci ci ci mais euh, jusqu'à aujourd'hui li nga xam que nous moom moo point de on va pas dire revendication li nga xam que nous moom la ñëw pour demander que ba tey ji c'est à l'ordre du jour en attendant que demain ñu xoolal nak naka la ñuy euh, nu mu tërati gisante et ci ñuy ñaan que nous que ni mu am heureuse parce que nous mm. ñun ñëpp loolu lañ ci rek pour bëgg liggéey donc mm. ah, bu parce que coalition depuis demain, on en a discuté ci réunion bi ñu eh bien entendu que nous lever qui euh, bi nu sitting aussi ñaan leen même bu on avons jox ngeen autorisation pour nous commencer pour nous liggéey nous ngeen ñu nous rek sitting parce que sitting bi dañ ko def ngir euh, askan wi que artistes aussi ni la nous secteur voilà donc euh, mais su

vraiment ils ont tenu à expliquer que y affaire une stigmatisation Nous cibler le secteur de la culture pour def ne que donc c'est parce que euh, maladie de fidougat nous avons fait deuxième vague donc aujourd'hui euh, je pense que le eh, discours bi fofu la discours bi que et je pense que nous état bi et euh, je pense que vraiment réunion bu bu mmh. réunion entre entre entre doomi réew mi mhm. gaa ñoom ñooy sunu njiit mais euh, jox nañ ñu cër boo xam ne ne que ne sentir nañu tey ne dégg nañu et je mhm. pense que vraiment am nañu yaqin ne que ne affaire bi dina dina dina sotti